ñi ci des ñu yóbbaale leen xaaji Ousmane Lo laay njëkk a nuyu ndax waatul buyuuta min abwaabiha suñ boroom moo ko wax mu ne booy dem ci dëkk wala ngay dem ci néeg jaaral ca bunt ba fii ma toog tey benn jëm ma tax ma toog fi gannaaw ndogalu yàlla mooy alxaaji Oustaz Ousmane Lo bii toog ndax moo ma wonale ak sëriñ Babacar Diallo bii ni ko alxaaji Souleymane Niang waxee léegi sëriñ Souleymane ne moom ñi fi daje ñépp mooy sabab bi moom Babacar waaye man sama teew fi alxaaji Ousmane loola al ustaaz wal muqaddam al aalimu al allaama fa tabaarakallahu li alxaaji Masila Kane wax léegi mooy dëgg moom ki ñaan daf ci yoru dara dara dara dara dara te muy feebar bi gën a bon ci feebar yi nag Sëriñ Mbay Abdul Aziz day wax ne mooy feebar bi gën a màndu it ci feebar yi ki waaw mu ne ndax balaa rey ci ki ngay iñaanee moom dalay rey moom ba noppi yow mi iñaan lay rey ba pare doore seet nag ndax dina mënal ki ngay iñaane wala déet moo tax yonent bi ne alxasadu laa yasuudu alxasadu laa yasuudu wa iyaakum alxasad beneen xadis inna alxasada yakulu alxasanaati kama taakulu naar alxatab yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku iñaan du nekk sang mukk nee na wa iyaakum maa ngi leen di wattandikuloo wa iyaakum maa ngi leen di moytandikuloo ñu ne ko loo ñuy wattandikuloo di ñu ko moytandikuloo mu ne alxasadu kiñaan ñu ne ko lu tax mu ne inna alxasada ndaka kiñaan yaakulu day lekk alxasanaati jëf yu rafet yi nga jëf ba noppi daf koy lekk kama ta kama naka nga xamee ne taakulu dana lekk annaaru safara alxatabu matt matt lu mu bari bari booy xam ma rek matt may jeex safara si di tàkk noonu la kiñaan di def jëf ju rafet joo am sëñ Baye Abdou nag mu ne mooy feebar bi gën a màndu ndax balaa rey fi nga jëm fi mu jëm rey la yow mi ñaan ba noppi ndax day xëy rek di wow rek ñu naan jebet laag bu demee seet ñu ne ko gisuñ ci yow trasu suukar ñu ne kar cardiaque la ñu dem xool xol bi ñu ne dara newu ci xool bi mu ngi battre normal ñu dem seet euh, deret ji ñu ne deret ji moom tabarakallah dara newu ci xool yax yi yax yi yëpp baax waaye loolu kenn mënu koo gis ndax bët du ko gis docteur xamul fu nekk muy wow rek di wow rek di wow rek ba xëy dee sëriñ Cheikh Tidiane si almaktum nee mu ne fi ngay xamee ku ku iñaan nee na nee na nee na ñaari onko la yu bokkul nee na da ngay gis ku tëdd ba guddi xaaj yu guddi une heure du matin deux heures mu jóg ne mu ne keneen ne u mu ne ñaari uyu buñ la ko firiloot doo ko xam mu ne ko njëkk ki dafa tëdd mënta nelaw mu jóg ne um waaye boo ko laajee dafay joxoñ asamaan ne allazina yazkuruna allaha qiyaaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard rabbana maa xalaqta hada batilan subhanak fa qinna adaba naar nee na day tëdd ba guddi yëg ne yàlla mooy borom doole lim li yàlla am xajul ci nit te safara bari na doole te yàlla nit la ko préparel ak jinne neena na loolu yëngal ko ba mënuta nelaw mu jóg toog ne yàlla yow yaa wax ne ku lay bàyyi xel ci bu tëddee ak bu tëddee ak wetam wala jaaxaanaay walla toog di la xalaat ba teen gis asamaan mu tiim ko te masul daano mu ne subhaanak tudd naa sa sell yow yàlla safara sii may xalaat ba mu tere maa nelaw faqi naa azaaba naar yal na nga ma musal ci lakk mu safara nee na kooku basam baax na mu ne waaye kële nag day tëdd ba guddi na um. jóg toog soxna si ne ko lu xew mu ne man de Ousmane Lo fu mu jaar ay <laughs> eh waaye fu mu jaar léegi di dégg naa day dem Amérique maa ngi nii si bi xoraan sax mënuma faa dem loolaay ro rocci xol bi nag muy wow ba xëy dee yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na lu leer laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsi sallallahu alayhi wasallam nee na kenn ci yéen ngëmam du mat fekk du lim bëggal boppam la bëggal jaami yàlla yi sëñ Ousmane nag bëggal na ñëpp yiw nii mu def fii la def ci Pikine la def feneen la def feneen la def feneen boroom xam-xam la tabaarakallah am na éloquence tabaarakallaahu buy wax it di nga ko par la force fa tabaarakallaahu kon bu ne naa ñëw alxaaji masila na ñëw sëriñ Souleymane na ñëw yaatal géew bi rek la te sëriñ Cheikh si nee na ku yegg ci yàlla rekk yaatal mu ne waaye ku yem ci seytaane xatal mu ne seytaane dafa xat te yàlla dafa yaatu yàlla ñépp xaj nañ ci kon xaaji Ousmane jërëjëf lii buñ ko amee fii yow la kon ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu ñu koy ñaanale yal na yàlla nekk sa ndimbal wa ayyadnaahu bi ruuxil qudus yal na la ko yàlla defal jërëjëf laay maxtaar yal na la ko yàlla defal wa zidnaahu rabbi zidni ilman yal na la ko yàlla defal yal na la yàlla làqal boppam fa yàq yeggul su la ko defalee ba noppi yal na ñu ko boole defal ñun ñëpp ak képp ku nekk ci tant bi ak ñu taxaw di déglu li ñuy wax ci suñu xol lañ ko tibbee te yow xam nga ko barki démb lañ toog maak yow di waxtaan lu yàgg fa tabaarakallaahu boobu xaj ma si la mi sax xamuñ ne dana ñëw teewul ñu ngi ko fay tudd kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm fàggul nga Babacar loo xam ne yiw yi ñun ñëpp xaj nañ ci mooy lii yaa ko wax léegi yonent bi salaay sallam nee na jox benn nit tibb mu lekk ko moo gënal yàlla nga tabax junni jàkka te junniy jàkka man bana masjidan bana allahu lahu baytan fil janna la yonent bi wax salaay sallam nee na ku tabaxal yàlla benn jàkka yàlla tabaxal la château ca àjjana kon bu wëññeekuwaatee moom salaay sallam nee na nga jox nit benn tibb mu lekk ko moo gënal yàlla nga tabax junniy jàkka kon itaamu taam boo demee ca alquran lim ko tudd bari na itaamu taami miskin fa taxamal aqaba wa ma adraka wa yutimuuna taama ala xubbihi zawil miskinan wa yatiman wa asiran innama nutimukum li wajhi llahi laa nuridu minkum jazaan wala shukuran kon loolu rek buñ ca yemoon mu neex kunte kunte yi ñoom bu seen bi koll feesee rek ñoom mbalaxal mada yegg nañ ca plafond ba ñoom soxlaatuñu yàlla soxlaatuñu yonent bi kon loolu am na fi doxal mbokk am na fi léegi la wax ne sama frère yi niñ ma fonkee ak niñ ma déggalee teguñ ma sax grand frère way jur lañ ma teg kon dundal mbokk am na fi te yonent bi moo wax ne yàlla nee na ko ku jokk mbokk ma jokk ko ku ko dog ma dog kon jokk mbokk am na fi ba xaji suleymaan gërëm fi doomam loolu yii rek bu ci yàlla si sukkandiku sukkandikoo ci mbaaxam nag ak yërmandeem ak daraja yonent bi mën nañu defal liñ bëgg yëpp waxuma la nag ñaanal way juróom bi tax mu sos lii la yonent bi waxoon ci ku dem sa lépp dagg na ba mu des ñett mu ne doom ju baax ju lay ñaanal sa ginnaaw benn ngi ni mooy indi mu ne walla téere boo bindoon wala garab goo jëmbatoon nit ña di ca keru di lekk ci meññent ma boobu am na ah wala bu bu ko ñetteel wala teen boo gas nit ña di ca xéwlu kon nag xaaju Usmaan sëñ Babacar yal na yàlla barkeelal la ah li Hadji Souleymane wax nag yàlla ko ko wax loo yéene nañ la ko nag nga nekk milliardaire yal na ko yàlla def te yàlla am na kàttanum nag te yaa ngi ci yoon wi incha allah Hadji Souleymane bi ko wax na jàpp fii ma jàpp fii alaaji Masil la jàpp fii alaaji Ousmane loo jàpp fii rek waaw mu ne doguma mu ne daf ko jàpp moom alaaji Souleymane comme waaye juróom mu ne ci téléphone lañ déggante xamante ci téléphone mu woo ko këram ñu toog waxtaan ñoom ñaar mu ne te fi mu ko jaarloo ba fa mu fay jaar mu ngi ciy gis njëriñ doomam bii toog premier jour bi mu ñëwee këram fekk ko mu toog moo ko fa dalal entré ko ci salle bi mu wax ko turam kaamil la yëkkati jox ko ne ko ziyaare naa la ko mu ne ci suba gi bi ñuy wàccee kaamil ba léegi Babacar a ngi toog moom mii nag di Xaaji Suleymaan sëñ Babacar nee na mënu koo fay mu ne tey su ñemee gannaaw yàlla ak way juram yi su ñemee xaaji Souleymane la mu ne sëñ Souleymane ñang bi ko may fit mu ne waaye li koy koy ñaanal rek mooy bàyyee na ko yàlla ndax tële na pour fay ko wala pour ñaanal ko waaye bàyyee nga ko bu baax ku mën a fay hal jazaa'ul ihsaani illa ihsaan kon ñu ngi koy sant bu baax moom xaaji Babacar waaye duñ ko sant lii du liggéeyu Babacar liggéeyu woy juróom bi góor ba dem la ak bii fi dese di yal na yàgg ajanaar bii yal na yàgg téeméeri at yàlla may ko ko du dara ci moom yàlla du tus te du ko wàññi dara Cheikhul Hadj Abdou Aziz daan na wax ne yàlla jëlee ñu fi yóbbu ñu lu mu ko yokk mu ne dara la du yokk yàlla mu ne mu bàyyi ñu fi lu mu koy wàññi mu ne dara la ko du wàññi mu ne kon nañ yàlla mu bàyyi ñu fi rek comme du ko yokk dara du ko wàññi dara nañ ko ñaan mu bàyyi ñu fi mu ne mu bàyyi ñu fi du ragal dee ndax ala kulli xaal dee day ñëw yàlla ñaar la ko ñage boo ragalee dee bay yéexamtul mu ne yudrikuhul mawt am na dee bu nekk ci gannaaw moom booy daagu di yéexamtalu booboo lay fekk fi nga taxaw rek ne la kiir tim yóbbu boo yàkkamtee bay daw mu ne am na booy dajal mulaaquhu innal mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum summa turadduuna ila aalimi alxaybi wa shahaadati bu la ca gën a neex fa yunabbiukum bi ma kuntum taamaluun moom la xaj Suleymaan sëñ Suleymaan loolu la gaa yi nag ñemewuñ ko booy wax ci dee ñépp ne mu ne su ngeen ma tontuwut ma tontuwaat leen eh ma yëgal leen ni yéen ñi tëdd foofu tey góor seen soxna yi ngeen fi bàyyi woon gaa yi doon nu nañ leen néeg ya bañoon ko fa dugg gaa ya dugg nañ ca biir néeg ya ñu ngay fanaan ak seen soxna yooya takkaat nañ leen ñu ngay fanaan ak ñoom ca kaw ya nañ leen daan bëggalee ñu ngi koy bëggalee ñooñu eh yéen jigéen ñi tëdd foofu seen boroom kër yi fàtte nañ leen takk nañ yeneen di soxna ñu ngi leen di njoñal ay ginaar lan mooy seen mbir kenn tontuwul mu bëgg a wëññeeku di dem rek am benn xaatif may benn bàmmeel bu wax ak moom ne ko yaa amiral muminina mu taxaw mu ne ko boobu léegi yaa ngi ñuy laaj suñ mbir tontu wuñ la waaye ñun yéen lañ yërëm ay waaye seen ndang-ndang jooju ngeen nekkee métti na utum dépense bi ngeen nekkee metti na ñaaw ñaaw jikko yi xew ci foofu metti na ñun yéen lañ yërëm fii neex na de ñëw leen lépp lu ñu yàlla diggoon gis nañ ko ba gis lu raw suñ njort ñu ngi ci ay château ñu ngi ñuy teral guddi ak bëccëg uru ay na yaa ngi nii wër ñu yéen kañ yéen a tardé Sina Omar door a jàngaat laaye ja bi mu ko jàngee rek déggaatul haatif bi alladina qaala lahum nnaas aaya boobu la jàng inna nnaasa qad jama'u lakum faxshawhum fa zaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allahu wa nicma alwakiil fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suun wa tabau ridwan allah wallahu zu fadlin azim yal nañu yàlla defal sutura dinu yàlla xaaji Moustapha Chérif Moustapha moom la ñu waroon jiital qaddimu qurayshan wala wala quraysh Cerno Bachir daf ma koy tere may wax ne bul waxati Xurayshan moom xam nga dafa aalim la Cerno Bachir borom xam-xam mag la yonent bi moo ne qaddimu Quraysh wala taqdimuhum dee leen jiital waa kër yonent bi te bañ di leen jiital te moom min ahlil Quraysh surtout yonent bi la moo Ahmed Aydara bii nekk seen TV di sama rakk di sama xarit di sama wëllëre ñoo bokk benn baay su ma juumut mooy caat moom mi am na ay rakk waaye ca ña gën a féete ndaw la bokk waaye moo yor daara ja tey wax dëgg yàlla Ahmed Aïdara nag lu baax li muy wax ci man yëpp ci rajo beeg télévision bi maa ngi koy dégg waaw ñi ñaa ma koy jottali Sénégal nañuy waxante yu baax yi ci bàyyi yu bon yi ñuy génni nit mënoo wax ci moom ba yàlla rëdd ci jëm di ci jot du dëkk mënul nekk ragal nag yàpp yàlla la Chérif ñu ngi lay nuyu di nuyu nag fa tabaarakallaahu ni ñu ko waxee alxaaji Masila Kan bii toog maa ngi ko koy wax léegi waxtaan bi ma mujj def alxemes tudd naa ko ci biir waxtaan bi parce que ay waxam dafa am njëriñ te balaa ngay jëli ki la gën a sori indil ki la gën a jege te nit ñi xam ko la xaaji Ousmane wax na ko léegi seede bi gën ci seede yi mooy ki ngay tudd muy dund ndax gars yi léegi koo tudd ñu ne waaye ku ko mën a laaj ndax kooku dee na tuddal kuy dund nga xam ne nit ñi tiiñal la jaral na leen ñu ñëw bi ci El Hadj Massiré Kane ne ko ndax li Chérif wax dëgg la bu boobaa dana ko dëggal wala mu weddi ko nit ku baax la ñuy xamante ba ak moom 1993 yaakaar naa du benn fan ah mu ne booba góor a mii ne ne benn at la am booba. 93 lañ xamante ci Pikine maak moom 93 bi léegi alxaaji ma silla ba ma xamoon moo toog nii donte ay coppite am na te koy àndal ku ne ñaan nga yàlla mu yokk waaye mosul changer benn virgule mosu ko changer xam kanam bi nga daan gis soo ko gisee rek moom ngay gis lu jafe tey nag ci jamono dafa am ñu may interpellé ba tàyyi den ma lu tax doo sol mbaxana cam na Bachir ci boppam woo na ma bis ma ñëw mu ne ma ñépp nee nañu lu tax doo sol mbaxana ma ne ko bañ a ut daraja ju ma amut kese moo tax ak bañit ku ma baatal baatal mënta ñàkk waaye da ngay xoolal léegi day sol mbaxana dafa day ut ut lu daraja may day xëcc lu ñëwagut moo ma ne ko bàyyi ma rek te comme bu ma solee mbaxana su ma lay nuyu summi ko ma bañ koo sol rek moo ma noppal mu ne ma kol nag ma ne ko kol it daf may diisal rek bàyyil bu ma màggatee daal faw ma ut mbaxana faw ma ut kol waaye comme màggataguma yeggaguma ci màggat nañ ma bàyyi nii rek mu ne ma may naa la ko moom Thierno Bachirou waaye ci bés boobu billaahi bu ma noon solal mbaxana mbaxana dootul jóg ci sama bopp ndax mooy sama kilifa waaye ndem may na ma ko rek moo tax def du ma ko def kon ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara alxaaji masil la ku baax kuy uti ku baax teggi ko <laughs> leneen ngay ut waaye du mbaax ku sérieux ku wàcc ku woyof ku noy newuñ fi nag di taggante wala di raggalante ginnaaw déedéet nit ku disponible wa man yaxtam bi umuuril muslimiina fa laysa minhum moom jàng na ko te mu ngi koy jëfe kon kan jàllo jërëjëf yal na yàlla dëgëral sa taxawaay bagante bii ngay def am na ñu neexul de yàlla xam na ko ba ñuy ànd maag moom lu ne dañ ko daan waxtaanee waaye tey ya ca ëpp yëpp yàlla def na ko ci sama côté ak ci côté waaw yàlla rusloowuñu waaw te yelwaanuñ kenn nit nag te suñ dem Europe am it bokkul ak dem Europe yi ñi ci des de gaaraluma kenn waxuma kenn nag waaye moom dem Europe ci lislaam ak sharia la ko teg fa tabaarakallaahu yal na yàlla mottali la naal yépp nga fekkee ñun ñépp ñu fekkee ak képp ko am ay naal ni moom yal na ko yàlla def di nuyu Serigne Souleymane Niang bu baax moom jamono bi ma amee fii kër ci ma kër Massar ñëw na ba ca kër ga te loolu yàgg na 2004 la woon nit bu defee lu baax sax mën na koo fàtte waaye man maa dul fàtte ay dat sax du ma ko fàtte gis nga ñama doon fitnaal ba ma nekkee gone sax mën naa la wax ñan la boo demee Sokone bi ma bi ma doon jàng ngeen laajte ku ñuy wax Cheikhou ture bitig bu mag magasin bu mag la yor ca Sokone fa tabaarakallaahu Cheikh Touré. ci kaw tali bi ci kaw tali bi di jaay. am na sama benn doomu nijaay nee na man lu ma waaye mu am na doomu nijaay boo xam ne daf koy wax ne lu ma waayi lebal. ma fay la ko ma fay la ko. ba ci rob bu ñaaw. ba ci rob bu ñaaw. ma ne ko moorwaat. ma ne ko moorwaat. rob bu ñaaw noo koy fayee. rob bu ñaaw noo koy fayee. mu ne sab rob du ma ca ñëw. mu ne sab rob duma ma ca ñëw. am ko am na dëgg boo demee Sokone saa yu may def conférence sookoon moom laay njëkk a nuyu Cheikh Touré ndax ñoo bokkoon classement ak moom booba nag du tey boobu maa ngi weex tal man sama baay dafa weex tal amul sax trace bu ñuul sama ndey ma yàq baal ma nag Juuf la sant séeréer bu ñuul kukk la ñool njool ca kaw yàlla suturaal na ma doom yi ma jur sax ñëpp a weex ñu cëpp seen baay lañ ñëw seen maam lañ ñëw yàlla def Cheikhou Touré bëggal ma bopp gis nga buñ génnaan récréation day mel ni sama garde du corps du bëgg ku ma laal bu ñu amee éducation physique di football ca terrain ba ku ma pàdd ma daanu dee nga day futteeku di xeex yow lu tax nga pàdd ko mu daanu mu ngi sookoon Cheikhou Touré moo tax saa yu may def conference sookoon damaa ana Cheikhou Touré bu fa newul ma ne bu fi nekkoon woo leen mu ñëw toog ci sama wet ba bi ci mujj nii moo ci mujj pour wan la ne nit kuy fàtte dafa am benn taalibe Baye Niass bu ñëw léegi ci kër ga balaa may ñëw fii muy imaam kundul Omar Diop bi xam na ko ne moom dama la sopp taalibe Cheikh al Islam la Alaaji Ibrahim Niass dama la sopp may recevoir ba mu yegg si ma jóg taxaw ne ko imaam kundul daanaka jooy sax def na ko mu ne ma noo xamee sama tur te yow benn yoon nga ma gis ma ne ko nit kat lu ko itteel dana ko xam benn yoon boobu la mën a gis nga ma itteel moo tax ma xàmmee la yooyu nañ koy jëflante ñun ñëpp nañ bàyyi xel àddina jeex na góor gi ñuy defal ñaan anamu su ñëwatee ñoo ko fekk moom mii nag ci def lu baax laa ko mos a xam taalibe yi mu dimbale buñ ko fayoon bor tey ay château am na waaye Sénégal moom xam nga luy xew koo dimbale ba mu yéeg mu ngay seet nu mu def ba sa escalier daanu yow moom mu des ca kaw bëggatul sax xam ku la xam benn surprise bi ci njëkk mooy imam Ousmane Lo moo ko wax léegi euh, kii mu defal teraanga te maa ngi koy door a yëg tey muy oustaz Diop Alioune Diop xaafizul Quran la ka imam xalilul xosari mën alxuraan zawiya ba ci kër ga moo ñu doon jiite baqara benaa si moo ñu ko daan jiite ñun par ajjuma la ñuy naafi la ba mu des weeru koor ndax weeru koor buñ dogee rek ñëpp dañuy dem waaye bu ñu waxtaanee ba noppi ba julligee dañuy naafi la moo ñu daan jiite baqara benaa si mu ngi ko daan tëj jour suñu gàmmo gi 31 décembre ajjuma bi mujj ci lay tëj kaamil bi keroog bi ma tàggoo ne ma damay taxu ma ne ko ah kon de zawle bi dina wéet ñoom it xul walla wax rek lañ fiy wax fi mu ne mu ne ma dafa am ku baax ku ma jox kër fa lay toxoon ak ndongo yi waaye tudduma turam maa ngi koy door a tey kon yal na la ko yàlla fay loolu defal nga ahlul quran nii nga xam ne Babacar moom la defal daayira yal na la ko yàlla fay te billahi yàlla dina la ko fay man dama xam oustaz Diop rakkam bu mbokkal ndey ak baay bi may ñibbisi nii ñoo bokk vol Air France maag moom Paris la nekk ñoo bokk vol ñëw na xadara si ànd ak imam Alioune Diop boobu ajjuma bii wees moo ubbil Seydi Hamza alquran keroog dara dootul jekk poñe sa maam mu ne nañ poñe suñu maam yow yaay poñe sa maam nun duñu poñe sa maam mu ne maa ci maa koy poñe li sumb yëpp mu sotti. li ñu sumb yëpp mu sotti. xam nga maa ngi lay wax si Babacar. mu ne mu ngi koy wax Babacar léegi. Massi la kan jàppul. Massi la kan jàppul. jàppul ma. jàppul. yow yaay def. mu ne maay def mu sotti. mu sotti jërëjëf ñag ah loolu de kenn mënu ci dara li waroon naan fat fat tàqali wuta noppa ki mbaama ki noppam mu ne bi mu demee ci moom waxtaan ak moom wax li mu bëgg ne ko dama bëgg ñaanal sama papa daf ko ne demal bàyyi naa la ak sëriñ Babacar si sëriñ Babacar defar na jotaay bi kenn du ko xeeb sax dof rekk a koy xeeb mu ne du toog ñaari fan ñetti fan yu mu gisantiwul ak moom mu ne dina guddee sax soxna si woo ko ne ko foo nekk mu ne ko ci sëriñ Souleymane mu ne ko ci circulation bi laa nekk fekk mu ngi kër sëñ Souleymane tabaarakallahu sant ko gërëm ko di nuyu alxaaji kase muy ku baax mooy mu ne jaaxam mboj bii ci wetam uh, ku baax xaaji masin la nee na ku baax la li ma wax ci kase moo nekk lii mu wax ci kase moo nekk ci moom kase xale yi ne nañ sant nañ la gërëm nañ la yow dañ lay ñaanal yàlla ndax axay bàyyi xalifa yow sa moomeel nga ko def te mooy dëgg te nit du yàq moomeelam yow axay bàyyi xalifa sa titre foncier la yaa ko ma mu ne bi ñu demee réunion bi mujj li ma leen wax ci wàllu daayira. lim leen wax ci wàllu daayira. mu ne leen mu ne lim bëgg ngeen gëm ko. kenn ku ne titre foncier boobu nga wax. kenn ku ne titre foncier boobu nga wax ne moom la. di jàpp daayira bi ne sa titre foncier. jàppal daayira bi ne sa titre foncier. bu yàqoo bu yàqoo. yow seen waa kër yàqu. yàqule man li may gëm ci daayira bi. moom lim gëm ci daayira bi. sama kër gee ma ne. këram gëre mu ne. ku ma fa fekkoon bëgg nangu kër gi. ku ko fekkoon bëgg nangu kër gi. maag doom danañ fa nangu xeex ba. maag moo ko ay doomam daal ñu xeex ba nanguwaat kër bi la bëgg kenn ku ne jàppee ko noonu la bëgg na kenn ku ne jàppee ko daay rek jaaxal ñu ngi lay nuyu diñ taxaw ci nuyu imam nga baal ñu àq yow lañ waroon njëkk a nuyu sax ndax ku dem ci dëkk war ngaa nuyu délégué de quartier ba ak imam ba soo leen nuyoo rek tooñoo kenn maa nangu ci làmmiñu Cheikhul Hadj Abdoul Aziz mu ne Serigne Babacar si bu naan ci salle bi ñetti nit rek lay nuyu commencé waxtaanam mu ne danaan maa ngi nuyu El Hadj Mansour kuy njobootu alaaji Malick dugg na mu ne teg ci ne maa ngi nuyu góor gi jokkeel caw kuy muqaddam dugg na mu ne maa ngi nuyu góor gi maa sàmba sàll kuy administration wala nga bokk ci rek dugg nga nee na commencé waxtaan waaw nee na nii la sëñ Babacar si daan maa ngi nuyu man Mansour mu ne ko ma Maodo njaboote rek dugg nga maa ngi nuyu góor gi jokkeel caw kuy muqaddam rek dugg nga maa ngi nuyu alaaji maa sàmba sàll nee na ku bokk ci administration rek dugg nga rek dugg ci waxtaan kon imaam ñu ngi lay nuyu di la jéggalu na di ñaan yàlla yal na yàlla dëgëral sa taxawaay saaxo iliman allahumma joo wax ak allahu akbar joo wax yal mel ni rasulullahi moo ko wax ñi topp ci sa ginnaaw roy la yal na mel ni xulafaa u raashidiina yi leen roy ñoo la roy ak asxaabu rasul yal na ko yàlla defee noonu ah, jamono nag neexul waaye ilimaan yi kenn ëpp leen ca genn góor bu baax moo ko daan wax moo daan wax ne ñoo yi yi nit gën a cher la ñoo ko yore ñu ne ko ban ban mu ne tudd doom takk sëy jullee néew mu ne maa ngi leen di yëgal nag ne ku fi indi sëy bu ma juboo la ki mbokkam xutba bi kenn du ko wax ci kaw buñ takkee sëy bi ba noppi dama naan yàlla yàlla na ci ay woy yu juddu rek ak i bandi dal di ne fatiha mu ne man na fatiha yooyu yàlla nangu ci benn mu ne ko fi indi liir bu ma jubdoo juboo la ki mbokkam dinaa ko tudd waaye damay sëgg ci noppi ndeyjoor bi comme kenn du ko wax ci kaw ne yàlla kii di yaayam woyu la bàyyam woyu la su màggee yàlla na leen raw nee na loolu laay waxee ci nopp càmmoñ bi ne fatiha amaat na yàlla nangu mu ne ku fi indi néew bu ma juba wala ki mbokkam it dinaa ko jullee allahu akbar ji moom dinaa ko wax ndax nit ñi dégg ko waaye dama naan yàlla sa ji sa dara taxut nag allahu akbar bi ngistal dog nga tax bu ko nangu ne na loolu ci sama xol laa koy wax nee na allahu akbar ji daal ñëpp dinañ ko dégg waaye la cay topp dara du ci baax nee na ndax kenn du ko wax ci kaw mu ne la cay mujj nag dama naan yàlla sa waa jii buy ñëw na yet wi dal mu ne ku ciy xam dara mu ne kenn du ci xam dara mu ne kon fexe leen ngeen jubóog man alaaji bu saaxoo nag moo daan wax bàyyi alaaji bu saaxo moo daan wax ni man Ibrahima day bu ma xamoon ki may jullee ak ki may sang saa bu ma xëyee dinaa dem ci ñoom jox leen junni ki may sang ma ne ko na ragg mi set na sang bi jekk na ragg mi set na sang bi jekk jox ko junni dem ka may jullee ma jox ko junni ne ko yërëmtalul rek ba may jullee yërëmtalul rek mu ne ndax yërmande rek la fa yàlla soxla soxla bu fa leneen mu ne gannaaw man ibu xaw ma ko nag xam nga lu may de ku ma gis rek yaakaar naa ne yow la danaa la teral jeex na mu ne ko xamoon ku lay mujjee danga ko teral comme kenn xamu ko nañ teral ñëpp te wallaay léeg-léeg nga bon ci nit te fekk ci say loxo lay mujj waaw maa la ko wax jërëjëf lii neex na ba dee man yii laa bëgg bu xewu diine amee na tiijaan bi ñëw na murit bi ñëw na laayeen bi ñëw na xaadir bi ñëw na ibaadu rahmaan bi ñëw na ñëpp ñëw ndax ñun ñëpp ñoo bokk benn kalima bi nga wax mu di laa ilaha illa ba ñuy wax fépp ca kaaba ga la ñuy wax fii ñoo bokk benn alquran ñoo bokk benn yonant ñoo bokk benn xibla kon li ñu war lan moo ñu war a teqali mooy li xaj Ousmane doon wax léegi sëñ koso gànnaar Mbàkke rahmatullahi war a radiyallahu ñoo jëlloo kër maag moom moo ko daan wax ci suñu gàmmu gi saa yi moo ko masaan jox kàddu rek benn baat lay wax pare na ci eh, salaamaaleykum mbokk mi eh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu Chérif ñu ngi lay sant di la gërëm di yëgal nit ñi ne daal eh, réew mi siddu nañ ko ba noppi mm, ñuy murid murid rek ba bés ba bés si penc ñi ñi ñi tijaan tijaan rek ba bés penc ñi xaadir xaadir rek ba bés penc ñi laayeen laayeen rek ba bés penc ñi indi coow li mooy ñi mujj ñëw te amuñ fi ñu installé salaamaaleykum wa rahmatullah at bu jot lii lay wax pare na ci te lii buñ ko nit ñi déggoon doy na discours doy na discours te loolu mooy dëgg ñi mujj ñëw te amuñ fu ñu installé ñoo indi coow li waaw ñoo indi coow li parce que dañuy ut fu ñu installé foog ñu uñ ut kuñ puus wala kuñ buux kon su ma sañoon jotaay yi bu amee Babacar mu ngi def liggéey bu rëy Babacar na ñëpp daje moo tax maa ngi lay ñaan am na wëllëre bu ma jot tey xaw ma xamoon nga ne xam naa ko walla déet muy sëriñ Malick sàll bu Pikine 92 lañ xamante ba fii ma toog di wax ak yow ñii ñëw di ma wax naan ma eh, jigéenu wérit yeeg yooyu sama njaboot ak sama soxna ak soxnaay jàmbur 92 ba léegi xam nga am na xasida bu ci Seydi Hadj Malick def pour ku ëmb nga jox ko bii mu naan ko bii mu takk ko mu féetee ci côté ndey jooram moom ku ndaw si mu ne bu yi mu ci jàmm ak salaam rek 92 ba léegi malik Sall la koy bind yam ca bindoon jeex na tey jii laa ko woowaat ne ko ya nga bindoon jeex na bindaatal dinaa ko jël si dimanche 92 ba léegi moo koy bind li ma wóor de moom man suñ ma doon utloo nitu yàlla ne ma fukk lañ soxla bu ma tànnee ñeent mooy doon juróomeel bi ci maandu ci fegu ci xam-xam ci wattandiku ci xamul lu jàngale alxuraan pikin boobu mu nekk daara jooju mu yore ca jumaa ja man 92 ba léegi foofu laa ko xamee foofu laa ko fekk ba tey mu nga fa doomam yi waaj a takk jabar sax maa leen tudd jeex na maa ngi la koy dolli dënk na 92 lañ xamante maag moom 93 ca déwén sa laa xamante ak alaaj masil la kan bii toog ku baax Malick sàll ku baax ku yàlla dënk xam-xam waxtu Cheikhul Hadj Abdoul Aziz woote waan ñooy ànd maag moom ci sama watu dem def na ci xasida woy na ko ci kaset maa ngi kaset bi te loolu 94 la woon mu ne ñëw na bi bunti këram mu jaar fa ziyaare ko ba noppi ñu taal taal mu bañ a tàkk mu ne ko sëñ bi lool lan la mu ne ko oto bee bañ a tàkk de mu ne ko xaaral ma ñëw am na lu mu wax teg loxoom ci kàppat bi mu taal rek mu tàkk ku baax loolu dama ko ci jaarale rek pour mu xam ne xam naa ko moom it nañ ko boolee ci bés bi donte ci la bokkoon ci la bokkit ba tey kon imaam ñu ngi lay sant ak mbokk moomu nga feggoon di imaam ali sañaan saalum la xanaa waaw saalum saalum yi sant sañaan yu ma xam ca saalum waaw tubaab gasaan ak eh, ca gannaaw kaw lax waaw kañ ñoom mbay sañaan ak ñooñu ñoo xam naa leen bu baax di la sant di la gërëm di sant mbokk yi di sant dëkkandoo yi waxtaan wi Babacar dafa am lu ñu waxoon ne moom la ñuy wax tey dama lay laaj sëñ Ousmane daaw dafa am lu ñu waxoon ne ci la ñuy wax mooy sëriñ Babacar waaye nañ ma may ñu leb ko ba déwén xam nga lu tax min wa mu ngi waaje jot te sëñ Babacar kenn du ko cof waliyu bu kenn du cof la def naa ci waxtaan bu yàggut mu ngi ci Chérif Dabakh TV bi waaye bu déwénee nga may ma bu ma ci defaatee wax ak laan danañ fàtte bi woon ci de baax TV maa la ko wax wali boo dégg ma wax ren bu déwénee la ma lay wax ci moom mooy ëpp la ma la doon wax la la ma la waxoon daaw te lépp ci xaqiqa laa koy teg ak sharia ndox ñoom seen dara taxawul wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaaun lu tax inda rabbihim yurzaquuna lu tax yàlla teg ko ca wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaaun inda rabbihim yurzaquun farixiina bima aataahum allahu wa rasuluh wa yastabshiruuna billadina lam yalxaqu bihim allaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun alxuraan looloo tax wali yu yàlla boo wax ci moom te nit la kenn wa mënta wax ci moom ci benn jotaay ñaari jotaay mu jeex fokk mu am yooy asaf ya ngay asaf nag booy wax beneen yoon ci yooyu ngay génne moo tax bañ dalee di wax ci yonent bi ba léegi est-ce que sàppi na sàppiwul waxkat bu ne jaar na fi wax ci yonent bi xoolal li maam borom Touba wax yonent bi xoolal li Cheikhul Xaaji Malik wax yonent bi xoolal li Cheikh na Cheikh Saad bu wax yonent bi xoolal maam Limaamu Laay xoolal maam Ablaye Niass xoolal Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye xoolal awliya u yëpp nga ñëw ci Serigne Babacar Sy El Hadj Abdoul Aziz li wax yonent bi te koo ci yër mbindam ñii doon wax léegi bayti El Hadj Mansour yi koo ci yër mbindam Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum koo yër mbindam rek dangay gis ne sax bokkul ak li ka la wax ci kenn nit ki lañ ko wala te ci kenn nit ki lañ ko wax muy rasulullahi kon moo tax maa ngi leen koy yelwaan bu nee rek bu ñu ma joxee micro bi ngeen may ma du ma ñu nuyoo sànn woowu nag nañ ko sànni ba déwén li Alaaji Ousmane wax léegi kàkk ja nag yal nañ ca yegg bu boobaa bu ma nee asalaamualeykum rek dama naan Serigne Babacar Sy may ngeen ma ko bañ a kenn bañ a dugg ci benn détail bu ma nee asalaamualeykum rek ba ngeen ne waaleykum salaam dama naan Serigne Babacar Sy rek yooyu may ngeen ma ko. lii ma bëgg a nag méngoo nag Serigne Babacar si méngoo ak jamono mooy li ma débité woon waajur ak doom te mooy ñu fi teg ñu complété ko wax bi dëgg la wala du dëgg te Serigne Souleymane ubbi waxtaan wi de te koy ñaanal boo ko jéppi woon di ko ñaanal déedéet a ah, am na ko jéppi baayam ba bëggut baayam jur ko am na am na yow nga gërëm sa bàyyi ba mu dem ndax lim def ci yow nga ji jéem a dabu feyoo ko te doo ko mën a fay ñaanal ko yàlla loolu jar na waxtaan beneen bi ci des ndax say doom roy ko ñii taxaw tey ku ne am na ci responsabilité ak man mii wax ndax maa ngi ak ay doom te su ma sañoon doom yépp jaar fi mu bëgg wala am naa ñu sëyi am naa ñu takkagut am naa ñeneen am naa ñeneen su ma sañoon ñépp tege ci siraatal mustaqim buñ ko dul wax nag gone yi duñ ko xam kon ñu mottalee ko waxtaan wi lu toll ci fukki minute ak juróom-ñaar fukki minute rek may ngeen ma ko ñu ñaan